mbokku téléspectateurs yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu rafetlu seen ànd ak télévision Futur Média di leen dalal jàmm ci seen émission face to face ñu ci ànd ak yéen dimanche bu jot mu nekk nag émission bu njëkk ci atum 2019 ñu ci profité rek di leen ñaanal atum jàmm atum xéwal fu ngeen mën a nekk ci réew mi ak bitim réew te it ñu ànd ceeg sunu kilifa sunu doyen également ci métier mi di journalisme Alioune Ndiaye nekk directeur Pikini production Alioune maa lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay Chérif Euh, di profiter ci occasion bi euh, je pense que euh, première émission année 2019 di année bu am importance di Sénégal di année boo xam ne aussi pour man dafa nar a marqué un tournant parce que 2019 après dañuy dugg ci année 20 yi e forcément ci année 20 yi ay changements yu bëri mën na am ci Sénégal donc waxtaan wi dafay am solo ci wàllu prospective dafay am peut-être solo aussi ci wàllu bilan ci li ñu war a jëm yëpp donc euh, maa ngi lay sant di la gërëm ci invitation bi d'abord euh, di sant di gërëm sénégalais yëpp ñi ñuy déglu ñi ñuy may bët ñi ñuy may nopp ak sénégalais yëpp yu nekk fii ci Sénégal wala ñu nekk ci diaspora euh, di beral nuyoo nag ñaari ñaari diwaan quoi ndax samay samay diwaan lañ et je me plais à le et à le muy Pikine déjà et puis Grand Médine sunu diwaan kon. waaw waaw. xam am solo kon bi Pikine sunu diwaan émission eh, bi sax d'habitude buñ koy tàmbali dañuy ñëwaat ci sa jaar-jaar mais comme ñëw nga fi ñëwaat fi moom. Hmm. benn question xëy na de curiosité rek laa lay laaj parce que gisatuñ la nee naa sax sa formation journalisme la. Hmm. lu tax nga xëy rek ba ko. Euh, journalisme mënuma ko bàyyi parce que euh, mi ngi mel nii nga gis benn enseignant wala benn. Euh, menuisier wala mécanicien journaliste mooy sama métier donc euh, et ni ko benn confrère doon waxee man je un journaliste de base c'est-à-dire à la base journaliste la et jàpp naa aussi ba illaa yow mi dini journaliste la mais xam nga nit ci ay jaar-jaaram day day toll moment boo xam ne wiir yi dafay baax ci yow quoi peut-être euh, jël koñ bi jubal directement moo gën a gaaw mais wiir yi mooy gën a wóor dama nekk ci jamono yu wiir yi rek mais sama métier moom ilaa yawmi diin tànkam yàlla mi ngi may may bàkkan je suis journaliste et journaliste bi du loo xam ne daf ma daf ma dab daf ma dal ou accident la dama ko bëgg dama ko bëgg depuis toujours depuis bi ma nekkee xale et tout donc euh, bëggoon ko suivre ko jàng ko pratiquer ko donc euh, euh et puis pratiquer ko à tous les niveaux comme ni nga ko xamee def rajo def euh, télé def presse écrite ba tey ma yore une société de production et dans le cadre de cette boo seetloo ñoo ngi def di journalisme parce que ñoo ngi def de l'information ñoo ngi def des vidéos d'information donc journalisme mooy sama métier mais bon euh, euh, dox boo gis yenn saa yi dina am façon quoi mm-hmm. donc au lieu ma jubal damaa wiir yi ci mm-hmm. wiiri bi laa nekk. waaw comme yaa ngi ci de loin nag di seetaan xëy na ñun ñu ngi ci terrain beeg yooyu ni nga ko doon defee ñu fekk leen si ban regard nga am ci journalisme sénégalais jamono ji waa xam nga nag man euh, euh, bi ma tollee ci jàng journalisme ak bi ma tollee ci pratiquer journalisme nekk ci ndaw nekk ci bees dama doon gis mag ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu woon souvent dañu doon critiquer dañu doon wax non journaliste yu bees yi nangam ak nangam x y. Mm-hmm. et dama waatoon ne bu ma demee ba toll ci benn âge bi duma toog naan journaliste yi. parce que en fait boo nee journaliste yi terme générique la da ngay généraliser alors que ci journaliste yi comme ci juge yi comme ci euh, menuisier yi comme ci mécanicien yi lu mbooloo bi nii boo koy gis nii ci biti ne waa mbooloo mi moom doy nañu waar di ci biir mbooloo mi di nga ci gis ñoo xam ne ay journalistes Camille lañ ay c'est de vrais journalistes c'est de bon journalistes ils sont jeune c'est vrai bokk ñoo yow génération ils font du bon boulot. donc bëgguma di def un jugement général en disant non journalisme bi nangam. mais am nga ci gis-gis quand waa no non gis-gis bi ma ci am. mooy gis-gis bi ma ci amoon ah. contexte yi xëy na bokkut ak surtout bu ñuy wax ay environnement économique bi difficulté yenn saa yi ngay gis ci yenn organe de presse ek métier bi. non pour man organe de presse yi léegi la ñu ëpp xaalis. ci sama hmm. gis-gis parce que quand même euh, ci wàllu média am na fu ma jaar euh, maanaam. Euh, tàmbali na ci reporter chef de service directeur ba nekk di gérer groupe de presse donc xam naa lan la média yi am ak lan la ñu amul quoi tey la média yi amoon mon bi ëpp xaalis mais tey lañ ëpp problème tey lañ ëpp charge aussi am na ay salaire yoo doon fay jamono yu ñu doon liggéey ñun tey boo ko fayee xale yi duñ ko jël et il y a une nouvelle convention collective qui vient d'être d'être adoptée et certainement les niveaux de de rétribution vont augmenter donc entreprise de presse yi pression bi ñu am sur le plan euh, pression financière bi ñu am dafa yokk mais li ñu doon am aussi dafa yokk te xam naa ci dara parce que diriger naa ko xam naa lu am ci biir quoi. Mm-hmm. muy lu am solo kon ñu dugg ci waxtaan wi wax nga ko sànq ci atum 2019 lan nekk muy at mu am solo ci histoire du wala laata loolu danoo génn ci 2018. boo doon am loo ci retenir wala jàngat boo ciy def laataa ñuy dugg ci 2019 bi. bon 2018 euh, comme ni nga ko xamee année année préélectorale la donc euh, année préélectorale di année bu am importance donc bëri na lu ma ci retenir mais dama ciy jël ñaari événement rek yoo xam ne bon man personnellement dañ ma marqué benn bi coupe du monde la parce que dama bëgg football. donc j'ai j'ai regardé euh, la coupe du monde seetaan équipe du Sénégal la mu fa def aussi fier ci fier ci seen prestation wax ko défendre ko un peu partout et bon j'ai vu que am na ñu bëri ñoo xam ne partagé wuñu woon sama avis mais on est en démocratie et en démocratie bon ku nekk am nga droit wax ni nga gisee ak ni nga xalaatee mais ni ma ja li ma jàpp man mooy on a été en coupe du monde et coupe du monde vitrine la quoi je veux dire euh, joueurs yi tey footballeurs yi lu ñu mën a defal dëkk. Euh, ci wàllu exposition boo jëloon agence nationale de promotion touristique bi gën a mag mënula ko defal liñ la mën a defal en terme de publicité fi ñu mën a yóbbu sa ak turu dëkk bon lu bëri mënatu ko fa yóbbu. am na leneen beneen ñaareel ponk bi nga ne marqué na la ci 2010. waaw euh, mooy euh, li fi mujj am mooy génn àdduna Sidy Lamine Niass d'abord parce que daf ma daf ma bett daf ma choqué beaucoup. et puis dafa nekk nit koo xam ne aussi dafa am importance ci sama trajectoire parce que boo xoolee man dama dama nekk ndaw ay mag tellement dugal seen seen seen biir euh, tellement def jox confiance euh, tellement confier ay responsabilités. dañu des ci Walfadjri boobu comme yaa ko tudd coow li bëri na ginnaaw bi si di dëddoo ci mbiram héritage beeg gestion ban avenir nga gis ci groupe bi. bon xam nga euh, Walfadjri. man j'en profite pour euh, euh, déjà nuyu Cheikh euh, Cheikh Tidiane Niass maître Cheikh euh, comme ni ma koy waxee rek ñun ñëpp ñi nga xam ne euh, de 1997 à 2005 2006 2007 dañu liggéey Walfadjri Cheikh un peu sunu booy la suñ ko mënee waxee noonu parce que xale la boo xam ne dafa teel a développer curiosité pour affaire u média Eh, dañ ko doon tooñ sax naan ko Cheikh boo màggee lan nga bëgg doon daawul woon wax avocat doon wax boo ma màggee dama bëgg a gérer Walfadjri donc am na tey occasion pour gérer ko et je pense que Cheikh am na ay idée xam na fan ci ni ma ko déggee bokk muy wax xam na fan lay teg tànkam plus ou moins xam na fan la jëm am na une idée claire am na une vision aussi claire donc euh, liggéey bi du moom moo koy def du moom moo ko war a def am na ay professionnels yu nekk foofu yoo xam ne doon nañ ko def ba léegi mën nañ ko def donc pour man avenir Walfadjri mu ngi dépendre ci waa Walfadjri lan lañu lan lañ koy def ak lan lañ fay def léegi nag bu ñu duggee ci année 2019 bii feek daanaka ñaari weer ñu daal di amal élection présidentielle mais gis na ni déjà kenn ci ñi bëgg a jiite réew muy Khalifa Sall bërki démb Cour suprême daal di rek kase li nga xamante ni kon moom mooy pourvoi en cassation bi est-ce que am nga ci mbetteel ci décision boobu xam nga euh, li ñuy wax procès mënul porter sur des intentions par exemple mënuma toog ma ne bon diw bu defee lii lii moo tax mu def ko man je veux m'en limiter aux faits maintenant am na ñoo xam ne ñoo ma ëpp xam-xam ci wàllu yoon ñoo xam ne xam nañu yoon mën nañu wax ndax pourvoi en cassation bi ndax rabat d'arrêt bi ndax nangam wax nangam ñooñu bu ñuy wax damay toog man di leen déglu et bu may déglu aussi damay jéem a analyser xool ci wax ji lan moom ma ci niru man Aliou Ndiaye lu yenu maana ak lan moo ma ci niruwul lu yenu maana mais man damay déparé rek ci dara loo xam ne ci la constant depuis le début mm-hmm. mooy j'ai de comprendre le dossier d'accusation de Khalifa Sall et le dossier d'accusation de Khalifa Sall c'est quoi Khalifa Sall jël na xaalis nee na daf ko jëndee ceeb ak dugub jox ko ay néew ji doole ñu vérifier gis ne jëndul ceeb jëndul dugub ok que pièces yi mu indi woon pour justifier ne dafa jënd ceeb ak jënd dugub mais jëndul ceeb jëndul dugub kim ne moom moo ko ko jaay kooku nee na moom amul ceeb amul dugub moom café Touba lay jaay donc bu amoon un milliard et quelque yu mu mën a yu mu yu yu mu jaay euh, yu mu jox nit kooku marchandise kooku jox ko xaalis boobu dina am neneen nu mu demee ci côté donc muy wane ne problème am na foofu man foofu laa ko yemale quoi maintenant ku ci nekk xam nga fii Sénégal gis naa fi ñoo xam ne ñi ngi défendre tey loo xam ne démb dañ ko bañoon gis naa tey ñuy défendre mbir yoo xam ne wóor na ma ne ëllëg en fonction de la géographie de leur positionnement dañuy wax loolu baaxul am na ñoo xam ne bu ñu nekkee ci nguur gi lu nguur gi def baax na. mais nag loolu bu ñu nekkee ci opposition bi lu opposition bi def. Mm-hmm. lu bu nekkee ci opposition bi lu nguur gi def baaxul lu ci nekk dañ koy interpréter en fonction de fi ñu nekk. mais est-ce que loolu aussi ñi nga xamante ni kon ñoom ñoo ko war a leeral muy magistrat yi ni ñuy gérer dossier bi aussi seen crédibilité du ci dépendre ba coow du ci am après comme ni nga gis polémique bi nii. waaw xam nga man euh, yàgg naa couvrir fii Sénégal ay dossiers yoo xam ne mbirum politique daf cee laxasu te def naa tubaab bi daf naan bu politique duggee par la porte justice génn par la fenêtre. mais c'est une manière de dire que rek lu politique laxasu en général. politique bi moo ci gën a bëri leneen. parce que juge yi ñoom nag am na loo xam ne mënuñu ko wax am na loo xam ne mënuñu ko def parce que dafa am loo xam ne dafa dafa euh, dafa euh, tegu ci ñoom te mënuñu ko bañ muy waruwaay muy obligation de réserve donc am na loo xam ne ñoom avocat bi mën na génn wax ko politicien bi mën na génn wax ko avocat politicien bi mën na génn wax ko. mais juge bi mënul génn wax ko mënul génn expliquer ko moom li mu mën a def mooy rendre benn décision bu rendre décision bi mu motiver ko maintenant comme je le dis un procès ne peut pas porter sur des intentions man yàgg naa suffisamment sur l'espace public sénégalais pour xam ne am na yu bëri yu ñuy wax buñ ko waxee ren boo toogee ba déwén ba pënd bi wuri tu te rends compte que gars yi ñii dañu ëppoon coow ñeneen ñi rek mais li ñu doon wax demeewul noonu donc man je toog di xool di seet di setantal ba am lu ma wóor doog a wax man daal li ma li wérte wóor mooy euh, benn union des magistrats sénégalais defe naa seen président wax na ko bi ñu commencé xas magistrats yi ci affaire u dossier Khalifa Sall daf ne nit ñi nañ xool dossier bi parce que pour man loolu tam lu am solo la quoi maintenant ñi ko def lan moo tax ñu def ko bon mënoo wax ne euh, comme ni ñu koy waxee amul benn. am na arrière pensée politique amul. arrière pensée politique mais moom moom aussi wëlbatikuwaat na ñaawlu gaawtu gi gim ne dañoo dafa gis ne dossier bi dañ koo gaawtu. waaw mais loolu man pour man journaliste yi waroon nañ ci def benn travail bu simple euh, ñu dem comparer parce que pour man foofu la dëkk foofu la dëgg bi di feeñee xam nga buñ ne dossier bi dafa gaaw ni ñu ko defee traitement bi dafa gaaw traitement bi dafa waroon gën a yéex parce que euh, ci ci pratique juridique Sénégal. traitement yi traitement dossier yu mel nii dafay yéex dama bëggoon journaliste yi dem jël ok ñu ne bon prenons le cas de mettons telle personne euh, boo xam ne sa c'est c'est un justiciable ordinaire moom il a déposé son truc nangam ñu xool combien de temps ça a bu ñu xoolee par exemple benn cas ñaari cas ñetti cas ñeenti cas gis ne ñoo ñëpp seen bos ça a trois ans quatre ans cinq ans et que xalifa Khalifa Sall ça a duré un effectivement dafa gaaw et bu gaawee bu boobaa ils sont en droit de dire que gaaw boobu c'est suspect mais encore une fois man awma benn élément d'analyse et souvent damay pousser sama jeune confrère yi di leen wax. non loolu moom bëri na parce que moom moo tax muy longue détention préventive yi ni wax ñu bëri ñoo xam dañuy xaar ñu àtte leen mënuñu sax am sax. ku leen àtte mais Khalifa moom épuisé na toutes les voies de recours. mais mais mais li ma xam aussi dans la pratique fii Sénégal mooy souvent nit ku am tour am avocat am xaalis bu ko fayee. avocat bi mën ko toppatool dossier mu siiw mu bañ a siiw ay mbiram mooy gën a gaaw <laughs> loolu réalité Sénégal la. Mm-hmm. donc pour man bu ñu yem ci surface bi nañ dem ci fond bi nañ dem xool parce que pour man euh, journalistes yi waru ñu yem ci euh, diw wax na waruñu nekk ay caisse de résonance waruñu yem ci waa kër xalifa Sall wax nañ waa kër Macky Sall wax nañ. ñu tegal sénégalais yi sénégalais yi nekk ci benn jiixi jaaxa boo xam ne ki mujjee wax walla ki njëkk a wax rekk la ñuy jàpp ne li mu wax mooy dëgg alors que journalistes yi mënoon dañ dem loolu c'est simple à vérifier. tey le koy def ah, moo tax ci loolu lañ sukkandiku moom moo tax ñu koy wax. non non par exemple bu ñu nee euh, euh, dafa am de longue détention par exemple. parce que cas bu ci mujj rek mooy bi ñu koy mujj tëkk rek mooy cantaku ni nga xamante depuis 2012 déjà ñoom amaguñ ku leen aati seen dossier bañ ciy grève de la faim. looloo taxoon ñu ko def mais dañuy <laughs> avancer. mais bon dossier du benn. du benn waaw mais ah, dañuy avancer bu ñu bu ñu avancer nag mooy Khalifa Sall moom comme bëgg naa nekk na état bu parrainage je crois mën na nekk maintenant loolu xam nga euh, mënuñu nekk fii di def météo euh, am na ñu naan ci wàllu yoon mën na nekk que xalifa Sall effectivement bi mu bi mu déposé dossier ñu nangul ko dossier am nañ ko ci liste électorale yi donc moom il est il est éligible et que la loi n'est pas rétro rétroactive donc ci analyse ñooñu mën na nekk mais comme je di encore une fois man sama xam-xam màccul lool ci wàllu yoon mais su ma doon wax sama yéene man sama yéene mooy ñu bàyyi ko mu bokk ci élection yi. ca kaso ba lay toog di ko def. waaw mais y a si parce que de toutes les façons à l'arrivée sénégalais yi ñooy décider de kan la bëgg mu nekk président maintenant tant que moom il a le droit c'est-à-dire tant que la loi lui permet. Euh, de le faire parce que quand ci kaso ba il a présenté une liste pour les pour les locales je crois pour non pour les législatives mm-hmm. ok et listam bi pour les législatives ils ont pu concourir donc man gisuma Euh, franchement sama yéene man en tant que sénégalais en tant que démocrate mooy Khalifa Sall mën a bokk ci élection yi. parce ce que loolu rafet na ci deru Sénégal ñu ne ca kenn ca candidat à la présidentielle ca kaso ba la nekk di fa campagne. non pour man li gën a ñaaw ci deru Sénégal mooy ñu mën a jël un milliard trois cent millions wu Sénégalais yi seyal ko noonu pour man loolu moo gën a graaw nañu toppatoo loolu parce que loolu mooy loolu mooy avenir Sénégal ay ay diw wala diw ne bon candidat nangam wax naa ngam bon nit ñi mën nañu wax mën nañu wax li ñu xalaat parce que loolu seen droit la. Mhm. mën nañu gisee ni mu leen arrangé parce que am nañ possibilité boobu mais pour man li gën a graaw. mooy xaalisu Sénégal un milliard et quelque wala xaw ma ñaata milliards ñu see ñu seeyal ko pour man loolu moo gën a grave. Mm-hmm. ak bu ko bu loolu aussi day poser beneen question mooy yamale gi aussi ci wàllu justice maanaam ku mu am ndey ba ak ku mu am ñaa amul ndey bañ ci am. non kumba am ndey moom ak kumba amul ndey warul mën a am ci wàllu justice pour man tout sénégalais doit être justiciable tout sénégalais est un justiciable et tous les justiciables doivent avoir les mêmes devoirs et les mêmes droits donc. Euh, man gisuma pourquoi ñu war a nekk ci réew moo xam ne ñun bi ñuy tàmbale journalisme déjà dañ doon wax di xeex pour kumba am ndey kumba amul ndey bañ a am ci wàll yoon mais il faut faire très attention encore une fois mm-hmm. parce que quelquefois euh, ci wàllu politique surtout ci wàllu discours dafa bëri manipulation man suñ may wax damay bëgg ñu présenter ma ay faits ñu ne ma bon ok euh, par exemple diw mi faits lii la lii la def lii la def ak lii la def mu am ay lu ko attesté am lu ko wane comme ni mu amee dans le cas de Khalifa Sall bu amee mais kooku dañ ko war a traduire devant les tribunaux que mu bokk fii wala mu bokk fee dañ ko war a traduire devant les tribunaux parce que loi bi nekku fi waru fi nekk pour ma Massamba ou pour Mademba loi bi daf fi war a nekk pour ñëpp pour tous les Sénégalais. Mm-hmm. tant que Sénégal nag pour man ñi ngi toog sax di am suspicion parce que euh, euh, pouvoir judiciaire mooy téye réew. donc képp ku intérêt Sénégal ñor danga war a def kéem kattan pour que pouvoir judiciaire bi mu bañ am benn suspicion décision yi muy jël ñëpp nangu ko parce que décision lay doon yoo xam ne ku ku ku ku ku honnête rek koo xam ne waxuloo pour sa bakkan walla waxuloo pour sa njariñ da ngay reconnaître que ne décision bi décision bu baax la. lu tax mooy li nga wax sànq gis nañ maanaam politiciens yi fii ci Sénégal ñi nekk ci opposition bi bu nekk ci opposition bi ni ni ŋàññee justice walla nangam bu ñëwee pouvoir lan doon wax. wuut du méngoo lan moo tax manque de conviction boobu ñu koy nemmeeku fii Sénégal. mais parce que euh, li may wax rek euh, politique niñ koy defee la ci Sénégal euh, sunu om politique yi niñ ñu jàppee la aussi xam nga olof day wax bukki bu ñemee waxambaane ci ndoxin ci doxin ba la donc politiciens yi bu la kenn nax politiciens yi dañu jàpp ne sénégalais yi ay nit lañ ñoo xam ne dañu gaaw a fàtte. loo leen wax tey bu la neexee suba nga wax leen l'exact contraire dañ koy fàtte et loolu moo am. Mm. parce que normalement am na position yoo xam ne bu doon beneen réew kenn du ko ñeme tenir kenn du ñeme ñëw tey da ngay gis koo xam ne tey day xeex ci mbedd mi ne non non non ministre de l'intérieur du nekk nangam ministre de l'intérieur ci PDS lay jóge mu jaral ko mu xeex nangam wax na tey. dañuy organiser benn réunion pour jëlee fi ministre de l'intérieur ministre de l'intérieur loolu gérer élection yi mu ñëw toog tranquillement donc muy wane ne le principe de non contradiction comme ni ñu koy waxee ah, ah, que nit waroo quand mën a wax lii wax plus ou moins son contraire sur des questions de principe parce que bu dul question de principe mais nit mën na évoluer mm-hmm. gis-gisam mën na évoluer xëy na dinañ évoluer ñoom parce que xale yi am na lu ñu tuddee vaar léegi loo fi wax rek ak internet bi ñu génnee la la nga waxoon xëy na buy wéy dinañ soppeeku mais dina euh, waxaat beneen candidat déclaré déclaré à la présidentielle muy Karim Wade moom it boobu ba léegi ma nga bitim réew ca Qatar benn yoon dafa def benn ojo ci internet bi ne dina ñëw daal di remobiliser ni ñu mais ba léegi xamul kañ la ñëw te moom it passé na état bu parrainage kaaw Karim Wade moom noo ko mën a étudier. waa xam nga man Karim Wade euh, li ma ci li ma ciy wax déjà bi mu génnee audio boobu euh, laaj nañ ma ma ne ci sama gis-gis nañ ma xaw a baal ci kàddu bi Karim dafa xaw a wow bët ni ko olof yi di waxee dafa wow bët euh, parce que nit mënuma comprendre yow. Euh, ñu saytu la xool say mbir gis ne jox nañ la sunu vingt quatre milliards pour nga tabaxal ñu ay cité cité yooyu ba léegi kenn gis ko euh, dépensé nga ay milliards ci ay bateau jënd nga ay ay ay làmp yuy jar ay millions def fi yeneen njombeeg yeneen ñu gis plus de cent milliards yu jaar ci sa compte monako ak li cent milliards di peser ak yeneen ak yeneen yu fi xew yow delloo woo ñu sunu xaalis bu ñu nekkee ci jafe-jafe am nga ci part de responsabilité bon ñu tëj la biñ la tëjee lépp li nga xam ne ñëpp ñi nga xam ne ñu bëri bokk ñi nga xam ne dañu nekk ay kilifa ci réew mi am fi cër am fi kàddu am fi baat topp njiitu réew mi président de la république ne la ko na la bàyyi na la bàyyi pour que réew mi dal na la bàyyi parce que peut-être waajuram. bu góor nekkoon président Sénégal nit ñi am nañ ci moom respect. Mm-hmm. am nañ ci moom cër am nañ ci moom yërmande ba yéenewuñ ko doomam di nekk ci yenn jafe-jafe yi ñu tëj la gars yi waxtaan ba pare ne nañ la bàyyi nga dem ndax am na am na ñu ko ñaan am nañu ko demandé mais ba boobu yaa ngi yoreel réew mi xaalis xaalis bu takku xaalis bu bëri. xaalis boo xam ne ba léegi fayagoo ko ba pare nga mën a ñeme loolu laay wax encore une fois ci rapport entre politiciens yi ak sénégalais yi encore une fois Chérif. mais loolu état état. fàtte fàtte xaju mais lan moo ci responsabilité état bi ne woon lii laa koy toppee ba léegi mënut a wax ni koppar yi jot na ci am jotu ci. non euh, man mënuma répondre à la place de l' état koppar jot nañ ci wala jotu ci. par contre je sais ñun ñëpp en tant que journaliste xam nañ ne ñoom ñi ngi def effort ñi ngi doon def effort pour jot ci koppar yooyu ok mais maintenant ñëpp xam nañ ne xaalis yow boo ko yoree xam àdduna tuuti boo bëggee nëbb xaalis bi euh, mën na yomb ci yow. mais ki nga xam ne dafa bëgg dem jëli ji li nga nëbb day jafe ci moom à cause du secret bancaire et de beaucoup d'autres choses donc pour man Karim Wade ku mel ni Madické Niang xam na bu baax dossier Karim Wade bu demee ba jël décision moom présenté wu c'est parce que amoon na bi gëm na ne Karim day wax nii rek mais du moom yow gëmoo retour bi ndax maanaam ñibbisi bi gëmoo ko o oh, xam nga mbirum politique moom dama dégg ay mag doon wax politique du ëmb day xëy rek wasin donc man damay éviter def affaire selbendom yooyu toog ci benn plateau naan bon gëm naa lii wala gëwma lii li ma gëm daal mooy Karim Wade bu tegee tànkam ci dëkk bi normalement dina delluwaat kaso. pourquoi. mais parce que euh, contrainte par bi mi ngi koy xaar am na xaalis bu mu yoreel Sénégal euh, xaalis bu mu yore bum war a fay ñëpp xam nañ ne même suñu jote woon man ak yow nga yoreel ma xaalis boo ma fayul loi mën na ma may. ma def la contrainte par corps nga dem tëdd kaso jusqu'à ce que nga fay ma donc contrainte par corps boobu mi ngi koy xaar et sunu xaalis boobu il faut mu jox ñu ko ci nii wala ci naa. Mm, mais est-ce que du responsabilité également état bi nga xamante ni moo ko bàyyi woon ñu xam ba léegi conditions yi nga xamante ni ci la ci la demee Qatar exilé wu ba léegi aussi on ne sait pas est-ce que fulu boobu. ñaari parti yëpp duñ ci am man ni ma comprendre Sénégal Chérif euh, conditions yi euh, Karim Wade demee Qatar compliqué wul gis nga fii Sénégal euh, Chérif boo fi boo fi jàppee. nit koo xam ne dafa am tur dafa am relation dafa am ay mbokk wala dafa am ay xame yoo xam ne seen kàddu pesé na ci réew mi am na kilifa yoo xam ne souvent day jafe ñu woo la ne la nga nekk njiit ci réew mi même ci leneen a yow miy nekk sa rédaction sax am na kilifa yoo xam ne tey bu ñu la woowoon ne la diw nga ne nga ne waaw sëñ kii diw naa nga wax nangam ñu ne la waaw man de dama amoon benn affaire bu may couvrir lu fi nangam yow da nga koy def parce que cër bi leen réew mi jox la. te yow pourtant privé nga mënoon nga ne non kii seen événement bi intéressant wul du ma indil du ma indil lii amul commercial amul dara intéressant wul du point de vue de l'information du ci dem mais ñun ñëpp xam nañ ne ñooñu bari ci réew mi ñoo xam ne buñ ñu woowee mhm. cër bi ñu leen jox ñun la en tant que sénégalais yenn saa yi mën nañ ñu woo sax ci loo xam ne bon demul ci sens suñu intérêt ñun en tant que privé dañ koy nangu donc yaayu a de pression ñun ñëpp xam nañ ko y a de pression pour que bon Wade mag la doomam waruñu ko téye bul ko def yi bul ko def na et loolu ça a joué maintenant est-ce que euh, dafa waroon résister le président à cette pression mën naa nekk. mën naa nekk leneen bi aussi boobu moo bëggoon laaj mooy tekk tekkaaru Ablaye Wade ku ne xam na ni yenn saa yi. daana wax xalaatam bu mooy message bi mu adressé sénégalais yi ci fin d'année bi ni mu noppee nii noo ko jàngatee en tant qu'analyste bon peut-être que dafa dafa bëgg a wu bàyyi doom ji mu wax peut-être que leneen la aussi parce que am na information bu fi jiboon jamono yee ñu ne daa feebar mais bi ñu ko waxee euh, waa PDS tëb nañ waa Omar Sarr tëb na pour démentir ko mais bon euh, démenti politique yi moom comme ñun ay journalistes lañ dafa am nu ñu koy jàppee mais bon ci wàllu xel walla xalaat mën nañ jàpp ne euh, toll na jamono joo xam ne daf ne man waratuma wax comme sama doom moo nekk candidat na na doomam wax pour que doomam sortir un peu de l'ombre mën na doon aussi leneen. Mmh. bu ko defee nag dañuy ñëw ci parrainage bi waaye laata loolu gis na ni comme ni nga ko waxee bu fekkente ni Karim Wade ñëwoon na Sénégal ñu tëj ko PS. di parti historique fii Sénégal bokkut ci élection yi muy élection yoo xamante ni san le PS ni le PDS est-ce que élection yooyu dina am xorom fii ci Sénégal. non non ça veut juste dire que euh, olof yi wax nañ dëgg lu tëgg tas lu tëgg tas euh, amoon na jamono boo xam ne Sénégal fii parti yi ko doon yi ko doon dominer ay SFIO lañ tuddoon ay BDS ak leneen ak leneen ah. donc mu am jamono joo xam ne euh, PDS PS ak ñeneen ñoo dominer woon politique bi. donc lan mooy cause bi. non renouvellement la parce que pour man parti yooyu yëpp ñu ci bëri demoon nañ ba nekkatuñu parti duñu parti patrimoine la et patrimoine ki moom patrimoine bi en général bu bu bu soree wala mu bouger mais patrimoine bi mën na am problème donc du ay parti politique c'est vrai que PS boo gisee mu am longévité bi mu am c'est parce que benn PS dafa yàgg ci pouvoir bi ñaar aussi PS Senghor mi ko defaroon ak Mamadou Dia parti politique lañ defaroon mais li fi nekk yu ci bëri PDS du parti politique PDS patrimoine Ablaye Wade la am na yeneen ak yeneen yu ñu fi gis. parti la kay am na ay structure yooyu day non dañ wax noonu rek parti euh, responsable yi militants yi ak euh, euh, responsable yi am nañ fa cër mais parti boo xam ne benn waay moo moom moom chaise yi moo moom siège bi moom moom bâche yi mooy fay mooy fay kaar yi bu bu meeting amee. Euh, moom la ñuy désigner candidat balaa même euh, deux ans avant avant l'élection du parti. kon du parti amul Sénégal. non non du parti daanaka. non no non non c'est moo fi ëpp nañ waxante dëgg donc fii euh, pour man renouvellement moo nar a am. parce que comme amul ay ay parti yu structuré yoo xam ne mën nañ mën nañ mën nañ tenir sur la longévité comme ay patrimoine la mais patrimoine yooyu ñi ko ñi ko sanc wala ñi ko yore woon ŋànk ko ëpp ci doole bu ñu mm-hmm. bouger dafay bouger donc ce qui va se passer pour man élection yi bu ñu ci génnee day fay am yeneen force politique yoo xam ne du ñu ay force politique yu fi yàgg yoo xam ne ñoo nar a émerger ñoo nar a jàkkaarloo donc APR bii gis nañ ne bon Euh, dina ci bokk Sonko mii doog a commencé il y a longtemps aussi tout le monde voit que Sonko il est en de faire son chemin et que forcément dina ci bokk ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne peut-être euh, euh, xame xamuñu leen woon ràññeewuñu leen woon ci wàllu politique mais ay AFP bu Moustapha Niasse ay Moustapha Niasse ay Ousmane Tanor Dieng waa LDMPT ñoom Amath Dansokho ñooñu pour man seen jamono weesu na. Mm-hmm. parce que 2019 après on va entrer dans les années 20. et dans les années 20 à mon leneen la ñuy gis Sénégal. ci loolu sax dafa mel ni gis nañ ko ci ñi njëkkoon am yéene nekk candidat ci 27 yi déposé woon parrainage ci conseil constitutionnel ay fonctionnaires et cetera mais au finish boo sàggunul 8 ñoo na a passé cap boobu déjà parrainage bi. est que jàppoon nga ni lu gën la. no c'est une bonne chose man depuis le départ je l'ai di ah j'ai dit euh, il faut fair le parrainage parce que bu ñu deful parrainage euh, euh, Chérif Olof dafa wax wax bu am solo lu ëpp day tuuru. te li fi amoon ci élection législative yi dafa ëpp. 47 listes. dafa ëpp ci benn dëkk quinze millions d' habitants mais lan mooy problème mu Sénégal mais pourquoi nit ñi waruñu mën a waruñu mën a waruñu mën a euh, euh, juboo ànd affaire bi du njël du lekk. xam nga bu dee lekk sax mën nga ne njël la nga ne bon bu ma bokkee gars yi du ma suur mais du njël liggéey la kaay lañu ànd liggéey ban problème moo ci war a am pourquoi nit ñi pourquoi Sénégal war a am ay cent et quelques partis ñu bëgg dem élection présidentielle bëgg am quatre-vingt-sept candidats may dégg ñeen ñi naan non euh, bon parrainage bi parenage c'est une bonne chose ku mënul am 68 wala 58 mille signatures yu baax pour mën ko déposer conseil constitutionnel ñu valider sa candidature pour man waruloo mën a présenter wu comme. Euh, candidat à l'élection présidentielle. ñu mhm. dépensé Sénégalais yi dépensé seen xaalis ci yow pour que nga am zéro virgule zéro zéro nangam pour cent. pour faire quoi léegi bi ci résultat yi nag finalement presque ah huit candidats déclarés en attendant. mais c'est une bonne chose parce que pour man on va au moins avoir un débat am na démocratie yu gën a mag ci àdduna bi yoo xam ne seen élection deux candidats moo fay am. deux partis yu mag la ñuy am. Mhm. wala boog am na démocratie yoo xam ne bu bëree ba bëri sept huit candidats mais. li naroon am Sénégal mooy bu ñu bu ñu ko arrêté wul woon kon heure bi ñu ngi am ak 87 candidats wala minimum 30 à 40 candidats mais 40 candidats fan lañ xoolal élection législative yi même débat yi le les les les les les adresses yi nga xam ne daf doon am à la télévision nga xam ne en général en période de campagne sénégalais yi dañ doon am plaisir toog di ko seetaan mais kenn mënu ko seetaan. parce que mënuloo comprendre en fait. débat boobu yaakaar nga ni dina am. ci non non maintenant si on a 7 8 candidats ben écoute à à 21h ou à 20h tu pourras te mettre devant ta télé et regarder 7 personnes 8 personnes ku nekk am 5 minutes. s'il y s'il y de la communication si si les journalistes font le travail mais il y aura un débat. <laughs> il y aura un débat et si les journalistes s'organisent organisent la campagne du point de vue de la communication du point de vue euh, de l'adresse pour que ce soit pas simplement de la communication des candidats vers les Sénégalais mais qu'il y ait un véritable débat que les gens soient challengés et tout ci programme yi ci yi ci vision bi ñu am pour Sénégal et tout mais bu boobaa Sénégalais yi dinañ am au moins fu ñuy jaar ba tànn parce que boo xoolee lu ñuy wax mooy Sénégal mën nañ folli mais mënuñu fal alors que fal tànn la tànn nag seppi la pour seppi da ngay xam lan nga war a seppi dangay xam lan mooy ceeb ak lan mooy tànn fi mu nekk nit ñi xamuñu lan mooy ceeb ak lan mooy tànn parce que bu doon quarante et quelques moo fi am mais nooy ràññee ceeb ak tànn. day jaxasoo day jaxasoo boo doon xool euh, mooy li ma la wax huit yi ma la wax en attendant parce que des na yeneen étape yoo xam ne xëy na sax dina dina gën a wàññeeku huit yi boo leen doon xool jàpp nga ni c'est logique ñu teew fi ñoom. waaw que huit yi euh, koo ci gis euh, am na. plus ou moins lu mu représenté ci wàllu politique fii ci Sénégal euh, ki ci bees peut-être bett ñu bëri mooy Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko gis nañ quand même depuis euh, deux trois ans mi ngi fi bon déjà man euh, ràññee woon naa ko un peu bi mu nekkee ci euh, syndicat de des des des impôts et domaines mais bon fël na ñëw na ak stylam et style boobu permettre na ko mu imposer wu. ñeneen ñi aussi c'est des gens. yoo xam pur aussi. waaw pur aussi pur aussi bon ñoom dañoo am appareil. pur dafa am appareil xam nga parti politique yi seen appareil euh, seen structure la seen militant pure appareil am ñu nangu ko ñu bañ ko parce que dégg naa leen seen communication ñu naan non du daayira bi mais seen appareil daayira bi la ok donc daayira bi mooy seen appareil et daayira bi c'est quand même très fort euh, ñoo xam ne pendant élection législative yi ñëpp gis nañu score bi ñu fi def c'est une force c'est une force boo xam ne euh, ci wàllu politique fii mu nekk kenn mënu ko négliger maintenant est-ce que c'est une force qui peut grandir sans coalition man ça j'en doute pour man force la boo xam ne pour mu grandir il faut que mu coaliser ak ñeneen ñu. Sonko moom lan mooy chance am bu fekkente ni jàll na moom. waaw Sonko mu jàll ak mu jàllu mu jàll mu jàllul pour man Sonko am na chance ba pare parce que a de l'avenir au fond. ce qui est important pour lui à mon avis c'est qu'il a de l'avenir déjà euh, fii mu nekk nii xam nga nga commencé politique deux ans trois ans ñëpp joxañ la plateau yi ñëpp di la tudd et partout nit ñi jàpp ne yow challenger bu sérieux nga c'est que am na chance déjà donc pour man quel que soit ce qui va se passer Sonko va sortir gagnant de ces élections. Hmm. ak résultat bu mu mën a benn ak résultat bu mu mënti doon. Hmm. am na keneen koo xam ne bëgg na taxaw ci moom muy Idrissa Seck la dernière fois bi mu fi ñëwee ak Aïssatou am nga loo ci waxoon ba gars yi mi àndoon ci woon ak yow la nga waxoon yaa ngi koy maintenir ba léegi. moom laay maintenir ba léegi man li ma gëm euh, ci élection yi di ñëw bon résultat bi mënuma ko préjugé ah mais dama jàpp ne Idi da doon wàcc depuis quelques années mi ngi wàcc à mon avis day gën a wàcc et que élection bii di ñëw man je vois. quelqu'un comme Sonko être être devant lui euh, donc gisuma ko mu dem mu mu mu perturber hiérarchie bi pour man euh, li nar a am après deux mille dix-neuf euh, dans les années vingt li fi nar a am ci wàllu politique ñi ko war a ŋànk et tout euh, am na xarañteef am na intelligence bu ko ci mën a boole mais pour man dafa griller carte yu bëri. Hmm, waaw dafa griller carte non ci xam nga sénégalais en général am na benn affaire boo xam ne nit ñi dañuy foog ne sénégalais ñu ko alors que dañ ko fonk sénégalais dafa dafa dafa fonk mbër sénégalais dafa fonk mbër boo xoolee sénégalais yi ci ci làmb déjà la ñuy nangu di di xuloo ba seen dënn tàng sénégalais sëriñam sax boo xoolee ni muy waxee ci sëriñam day wax comme kuy wax ci sa mbër parce que dafay jàpp ne euh, loo gis rek làmb la Euh, boo amee adversaire da nga ko war a song daan ko. Mhm. Euh, Idrissa Seck nag dafa tolloon ci moment boo xam ne sénégalais yëpp dañ doon xaar mu sëgg bëre mu dem di combine bëre. Mhm. ci wax na nee na moom dootul critiquer critiquer ti Macky Sall la dernière fois ak silence bi mu nekkee stratégie boobu xëy na jàppoon ni mën na jur njëriñ. bon du critiquer Macky euh, maa ngi xaar parce que bon pour man euh, euh, mën na doon une stratégie nii euh, pour ñu wax ci moom parce que c'est une bonne stratégie pour ñu wax ci yow du ma critiquer daaw diw ñun journalistes yi day doon curiosité ci ñun nan lay lan lay defee campagne nan lay defee campagne ak lan lay defee campagne man maa ngi maa ngi xaar parce que bon booy booy proposer dara da nga koy proposer en opposition ak leneen leneen li Macky Sall mag Sall moom aussi gis na ni mu ngi samp coalition bu mag Benno Bokk Yaakaar machine la bu bu rëy est-ce que moom it euh, boo ko doon nat lu muy demee. Euh, li ma gis mooy il a quand même réussi là où Ablaye Wade avait échoué euh, parce que ñu bëri ñu nekkoon ñu nekk ay analystes jàppoon nañ ne Benno Bokk Yaakaar du dem que ay hommes politiques lañ ñoom ñëpp dañu am ay ambition seeni ambition moo bokk ñoom ñëpp c'est la conquête du pouvoir donc forcément seen ànd mënul yàgg on se rappelle Benno Bokk Yaakaar dëggal euh, coalition bi euh, yóbbu woon Ablaye Wade au pouvoir je pense que c'était la coalition Sopi hein mm-hmm. euh, je me souviens plus mais coalition boobu bi ñu defee un an waaw bi ñu waree CA 2000 c'est ça bi ñu waree def élection législative yi rek ci la Idrissa Seck génne woon texam boobu xaw ma la corde et le puisatier la bi mu attaqué woon Moustapha Niass coalition bi éclaté parce que boobu Idrissa Seck mi ngi nekkoon PDS am fa doole commencé fa woon am doole alliés yi gêné ko mu def tout ba génnee alliés yi ba pour que ñoom ñu des fa quoi. donc mbaa dund yow da nga am problème ak Idrissa Seck. non non non du tout non mm-hmm. man aw ma problème ak kenn. Euh, je veux dire du problème de personne <laughs> damay damay analyser loolu la def. Mm. def na ko wala def ko. <laughs> il l'a écrit wax tontu bind na texte boobu la bind ko mais Idrissa Seck ñëpp xam nañ moom moo éclaté loo coalition entre CA CA CA moo ko éclaté loo moom moo bind texte boobu attaqué Moustapha Niass waa kër Moustapha Niass gis seen bopp ci la coalition bi éclaté donc coalition boobu tenirul lu yàgg. parce qu'après il a eu des problèmes ak euh, waa LD MPTI et tout et tous ces gens ont quitté la coalition donc la coalition n'a pas tenu longtemps alors que Macky sur les sept a coalition et pour man loolu c'est une grosse performance ça montre encore une fois que nit la koo xam ne il a beaucoup d'habileté contrairement à ce que certains disent il a beaucoup d'habileté donc il a pu il a réussi à maintenir sa coalition maintenant li ñu gis mooy pendant les législatives euh, coalition am il n'avait pas eu pour cent la majorité maintenant on va me dire que les élections ne sont pas les mêmes je suis d'accord ce ne sont pas les mêmes élections élection présidentielle mais y a du travail à beneen bi mooy justement Macky Sall moom gis nañ keneen ñu ko fekk si ñu tuddee leen ay ay fii ci Sénégal ñooñu dañ koy defaral wala dañ koy yàqal ci sa gis-gis. bon ça dépend am na transhumants yoo xam ne dañ lay yàqal parce que. Euh, dañuy transhumer en te faisant croire que am nañ ñaar ñetti nit seen ginnaaw alors qu'ils n'ont personne derrière. parce que loolu lañ doon wax waaw waaw de loolu laa la wax dama ne am na transhumant yoo xam ne dañ lay yàqal parce que amuñu ñaari doomu aadama seen ginnaaw mais am na nit ñoo xam ne mën nañ ñëw ci yow indi la njariñ parce que am nañ nit ñu nekk seen ginnaaw maintenant am nit ku nekk sa ginnaaw. ak am nit ñu nekk sa ginnaaw ñu la déggal aussi beneen problème la. Mhm. Madické Niang aussi bëgg naa ñu wax ci kaam boo xoolee moom mujj a jóg ci candidat yi. ak coow li mu fi amoon ak Ablaye Wade ba ne moom candidature alternative lay wóor waa PDS ànduñ ci berne daare boppam te moom it franchir na état bu parrainage bi. loolu mbetteel la wala jàppoon nga ni lu war a. non du mbetteel parce que euh, Madické ñi ko wër boo xoolee parce que tamit euh, booy analyser nit del xool souvent ñi ko wër ñi mu àndal euh, Madické gis naa autour de lui ñoo xam ne yàgg naa leen gis ci wàllu politique donc xam nañ fan la ñuy teg seen tànk. du ñu ay novice du ñu ay amateur donc ñoom régler lu leen di lu leen di jox signature yooyu du loolu moo jafe en fait parce que am nañ nit ñooñu ci Sénégal am nañ expérience boobu xam nañ fan la ñuy teg seen tànk donc man ça ne me surprend pas. dafa taataan ci PDS wala. jàpp bien certainement Madické Niang kay balaa muy balaa muy tànki fenn kay tànk ci PDS il est clair que même boo xoolee son entourage ñi ko wër ñu ci bëri fu ñu jóge fu dul PDS. Mhm. ci PDS lañ jóge ak bu affaire bi demee au cas où Karim bokkul jàpp nga ni mën na amaat ñeneen ñu ko fekk si. mën naa ne comme ñooñu mën nañ dem ci Macky Sall aussi bul fàtte. bëggoon naa ñu taxaw également ci ku mel ni Hadjibou Soumaré ak Pape Diop moom it amoon na fi ay ndomba tànk fii ci Sénégal malheureusement moom <laughs> du bokk ndax euh, parrainage am matul. Mm-hmm. waaw man de xam nga lu may xaar fii mu nekk et ça euh, ci affaire parrainage bi ça m'intéresserait bien mooy y des organisations de la société civile yoo xam ne. Euh, dañ leen prier woon foofu pour ko ñu fekkee ñu compté euh, fekkee compté bi fekke mbir mi pour mën ci def naa bi ko waa conseil constitutionnel di def c'est parce que dañu jàppoon ne euh, ñoom dinañ am kàddu gu ñu joxe ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu politique tamit dinañ am kàddu bu ñu yëkkati li gënoon mooy am koo xam ne bokkul fenn bokkul fii bokkul fee dina mën a ñëw wax nit ñi ne mais mbir mi nii la demee fi mu nekk ñun li ñuy xaar ci waa société civile yi nekkoon foofu mooy ñu wax ñu exactement nan la mbir mi demee parce que mbir mi bëri coow interprétation yi bëri na sénégalais yi dañ bëgg a xam exactement nan la mbir mi demee te euh, ñu bëri ci waa société civile ñi demoon foofu ay nit la ñoo xam ne man. yaa euh, wóor am naa ci ñoom kóolute parce que gis naa leen euh, lu yàgg fii ci Sénégal ñuy dox te doxuñu lenn lu dul njariñu Sénégal ak sénégalais yi. Mhm. donc am naa ci ñoom suffisamment de kóolute pour tey. Euh, ñu wax sénégalais effectivement affaire bi nan la demee. contentieux bii ni mu demee est que jàpp nga ni mën nañoo dem ci élection yu am jàmm parce que ñi nga xamante ne ñoom recalé na leen teg nañ benn structure bu ñu tuddee C25 maanaam muy 25 yooyu ñoom nee nañ dañuy àndoon ci parrainage bi di ko contester. man je pense que à l'arrivée sénégalais yi ñooy décider et sénégalais yi bu ñu bëggee voter ji du benn nit nga bokk ñu bokk C25 wala C23 wala C40 ku leen di tere voter ji je pense que aujourd'hui problème boobu ñuy wax noonu nekkul préoccupation majeure u sénégalais man bokk sentiruma ko ci nit ñi sentiruma nit ñi bon li ma leen di gis ñuy wax ci combat euh, Modou Lo Balla moo ëpp li ñuy wax ci problème mu parrainage ak ñooñu li ñuy revendiquer donc sentiruma ci nit ñi ne am nañ problème par rapport à sa ñëpp xam nañ ku kuy ku kuy réfléchir un peu nga xam ne bon li fi xewoon ci législative yi loolu dafa ëppoon quoi loolu warul woon ban erreur la def si sa wàll ba ba boo xoolee ñoom ñi ci bëri ñuy jàlloon ci parrainage dañ ci def njuumte wala. non pour man euh, li dal Sénégal dal Sénégalais yi euh, bàyyiwu leen ñoom ah ñu bëri ci ñoom wala ñu bëri ci ñun dañu manqué de rigueur ci li ñuy def. dañu manqué de rigueur au fond nañ ko wax te dee <laughs> dañuy xam nga ñun fii surtout ci wàllu politique dafa yomb parce que ci wàllu politique lu la dal nga ne sa adversaire la lu la dal nga ne sa wujj la ok mais la vérité c'est que boo defee liggéey bi ni mu waree def ko de manière rigoureuse professionnelle nga def ko ak sérieux mais kenn du ci teg baat mën nga am ay ay mille deux mille trois mille mais yenn chiffres yi doo ci egg. Mhm. et bëri bëri na ci wàllu politique. Mm-hmm. parce que souvent nit bu jógee nee damay def politique dama bëgg jiite réew mi da ngay gis ay courtiers yu bëri yu daw jub si la ku nekk naan la man am naa mille personne fii am naa mille personne fii mën naa la defal lii mën naa la defal lee. Mm-hmm. ñooñu en général li leen intéressé du dara lu dul sa xaalis. Mm-hmm. koppar yi nga yore moo leen intéressé bu ñu ko lekkee ba pare mhm. li nga leen di sant duñ ci def dara maa la bëggoon laaj ci rapport de force yi parce que day réalité ci politique mais gis na quand même Macky Sall ak opposition am luñ fi xëccoo rek daanaka moom mooy mujj ci booram lay mujj féete <laughs> loolu lu ko waral sa gis-gis non parce que pour man li ñuy xëccoo en général intéressé wul Sénégalais yi du enjeu bu important pour sénégalais yi parce que sénégalais yi xam nañ ne au fond bu ñu demee ci urne yi voté ñoom décision bi ñu déposé ci urne décision boobu génn le soir leneen du génn mën nga wax lu la neex mais leneen du génn bu leneen doon génn kon Ablaye Wade du perdre pouvoir kon ab du juf du perdre pouvoir kon waa waa waa taxawu ndakaaru ñoom Khalifa Sall duñ nekk maire de Dakar ba léegi. Mhm, donc donc pour man la question électorale politiciens yi ñoo ko dépassé wul mais sénégalais yi dépassé nañ ko donc bu ñuy wax noonu mais parce que Macky Sall il a le pouvoir. il a le pouvoir de décider moom la sénégalais yi fal pour que mu décider donc forcément décision bu bu sénégalais yi toogee seetaan mais décision bu mu jël c'est cette décision qui va s'imposer même bu dee doole la non lan la ñuy wooyee doole parce que euh, euh, Chérif maa ak yow ñu bokk mbir ma ne la bon kaay ñu waxtaan ci mbir mi xool nu ñu koy defee nga ne ma du ñëw waxtaan ak yow parce que yow ku waxtaan ak yow nii naka sa naa dangaa mel nii naa nga wax naa nga ma la ok doo ñëw waxtaan ñan ñoo nangu waxtaan ñii ne ñun ñii man ma Mademba ak Alpha ñooy waxtaan ok ñu toog waxtaan décider li ñuy décider ne bon léegi nañ ko defee nii voté ko ba pare nga ne non non non euh, waroo woon def loolu dafa waroon am consensus moo mais boo bëggee consensus bu moo wotee waxtaan ñëwal au moins ñu waxtaan. mais bu na fi waxtaan woowu moom mooy. Euh, jamono non non ce qu'il y a non ce qu'il y a euh, moom moo tax aussi. ñoom ñu am ci déedéet déedéet man pour man le souci c'est que sunu opposition bi. li ñuy campagner <clears throat> Abdoulaye Wade campagne na ko fi pendant des années euh, dañ ko war a bàyyi di campagner mooy installer dëkk bi ci benn situation de de tension parce que loolu la ñuy campagner en fait parce que au fond même bu président de la république woote waxtaan waxtaan boo xam ne seen njariñ la dañ naan bu ñu demee ci waxtaan bi ñu am consensus élection yi day apaiser te élection yu apaisé sans tension arrangé wul opposition ci loolu ci loolu affaire du ministère de l' intérieur bi laa bëggoon taxaw parce que président wax na ci bërki démb face à la presse lu leer nee na du ma ko def du ma ko def ah lu nguy njaay du ko changé te muy loo xamante ne revendication opposition bi la dañuy fàttali ni Ablaye Wade nanguloon na leen koy jamono Abdou Diouf moom ba ay alternance am fi est ce que loolu aussi du indi jaxasoo ba ñàkk kóolute. non non mais bon je pense que euh, Cheikh Gueye bi mu nekkee directeur des. directeur général des élections xaw ma ministre directeur général des élections. ministre chargé des élections ministre chargé des élections. Cheikh Gueye était sous la responsabilité de Ousmane Ngom terewul Ablaye Wade a été battu donc pour man nañu bàyyi yooyu loolu bu doon fonctionner euh, am na yu bëri yu fi xew yoo xam ne du fi xew. Mhm. il faut ñu bàyyi yooyu cest à que sawaay euh, Chérif na gaa yi wax ci Sénégal nañu wax bu ñu leen joxee réew mi nan lañu koy gérer ban programme lañu am ban projet lañu am li Sénégalais yi di xaar ci ñoom ñu nekk ay nit ñu dëggu. ay nit ñu sérieux ay nit ñu compétent am équipe yu compétent ñu mën a wane man damay gis ñoo xam ne dañuy toog man candidat la candidat te mënula wax moom rek mooy wax déjà ci parti am mënuloon ñaar ñetti nit yu crédible yoo xam ne ñoo nekk autour de lui pour que tu te au moins kii bu ñu ko dénkee réew mi am na ñu ko wër ñoo xam ne mën nañu amal njariñ réew mi. Mm-hmm. donc pour man la question euh, électorale bi ñuy agité le ministre nangam wax nangam franchement pour man Sénégal waxuma sax journaliste yi. ci boppam sénégalais yi en général parce que sénégalais yi pour man du yitte ci ñoom. bu doon mais akki la xam politique nee nañ aussi yàgg na fee am. ba amoon fi ay code électoral yoo xamante ni day am consensus non non non xëy na foofu la wax ji nekk. non mais non man pour man ak yi du ak wu dara parce que fonctionnaires yi organiser élection yi depuis des années ñoom ñoo fa nekk. fonctionnaire ñoo koy organiser aucun ministre de l'organise ñoom ñoo fa nekk donc nga teg Massamba nga teg Mademba ñoom ñoo fay nekk donc ce qu'on attend c'est que le ministre ou les fonctionnaires qui sont là-bas soient suffisamment pour pouvoir l'organiser et que les conditions d'organisation yi ñu soxla ñoom pour organiser ko ñu am ko ña fa nekkoon man ay jamono am na ñu ma ci xamoon ña nga fa ba léegi donc c'est quoi le problème pourquoi ñu bëgguñu ñu bëgguñu bëgg ñu téye téye sénégalais yi ci loolu non non non nañ ñu wax bu ñu leen joxee réew mi nan lañ koy gérer nañ ñu indil ay idées nañ ñu indil ay perspectives nañu challenger nañu jox ay chiffres nañu wax loo xam ne mën na mën na mën na leer ci suñu xel pour que bu ñuy tànn ñu xam nan la ñuy tànn. loolu nag dafa manqué Sénégal parce que bu fekkente ni yenn réew ba ci Afrique sax bu élection amee day am débat yoo xamante ni candidat yi day ñëw ku nekk wax sa yéene. malheureusement fii amul benn loi boo xamante ni wax na ci ba du am ce que loolu amul lu manqué suñu démocratie. bon euh, démocratie man pour man suñu bëggee mu gën a avancer am na ñaari mbir yoo xam ne daf ci war a am. Euh, benn bi mooy sondage d'opinion yi dañ ko war a permettre dañu war a permettre nit ñi xam depuis le départ les intentions de vote loolu pour man avancé la boo xam ne ñun ñi nga xam ne dañuy liggéey ci wàllu opinion nekk ay journalistes war nañ ci wax war nañ ci dox war nañ ci xeex pour que loolu mën a am bu ñu defee élection aussi bon c'est vrai que c'est difficile élection bu am huit candidats ngay organiser débat autour de huit candidats loolu mënul nekk ok. li mën a France dañ def France da ngay il dépasse même Euh, je bu ñëwee deuxième tour lay wàññi. mais premier tour waaw non tour mën na am débat. deuxième tour mën na am débat bu demee ba desul lu dul deux candidats d'accord man loolu seetaan naa ko France quoi mais débat huit candidats mosuma ko seetaan. ëpp mosu mais man mosuma ko seetaan peut-être que j'y j'y ai pas fait attention par contre seetaan naa débat deux candidats là c'est un vrai débat où les gens peuvent discuter échanger des trucs mais bon pour que huit candidats taxaw pendant combien de temps déjà euh, nga leen jox parce que huit candidats da nga ko mën a wax lu dul dix minutes je me ndax loolu débat la est-ce que loolu c'est efficace d'ailleurs loolu est-ce que am na intérêt hmm. mais débat entre deux candidats oui bu amee deuxième tour pour man on devrait tout faire pour qu'il y ait un débat entre entre euh, les yi dem deuxième tour hmm, hmm. maintenant ma tax sama laaj sa avis parce que parlant de loi ak kii bi parce que période préélectorale bi ñu nekk même médias yi dafa dañ leen a limité pour éviter certaines choses est-ce fii mu toll neex naa déjà contrôler loolu ak réseaux sociaux yeeg yooyu non man mosuma ci d'accord déjà bi ma Euh, en pleine activité dans le domaine des médias j'ai toujours di que loi boobu ñuy wax ne bon bu élection yi desee Ablaye Wade moo ko fi defoon ay jamono il faut comprendre l'esprit de la loi Ablaye Wade bi muy xeex pour defar loi boobu. boobu Sénégal bon ils ont dit que lañ ko. commencé voilà parce que an moment boobu Sénégal benn télévision moo fi amoon ak benn rajo télévision ak rajo boobu muy RTS waa PS ñoo ko contrôlé woon donc moom comme amu ci woon accès il avait dit bu ci kenn am accès. nañu def loi boo xam ne keneen du ci am accès ba moment euh, campagne bi ñëw nga xam ne moment boobu ñun ñëpp dinañ ci yem mais nekkatuñ cas boobu tey fii Sénégal écoute euh, euh, canaux yi bëri nañ télévision yi bëri nañ rajo yi bëri nañ donc y a aucune raison pour que loi boobu continuer di exister loi boobu amul benn sens et loi bi je di jour bi mu commencé la ko gars yi di violer mm-hmm. ok parce que actualité bi du fi nekk nag gars yi ne duñ ko couvrir il faut ñu couvrir ko buñ ko couvriree dinañ ko teg donc c'est une loi dañuy violer droit à l'information non non voilà loi la boo xam ne pour man amul amatul benn sens au fond mhm. en 92 amoon na sens mais léegi amatul benn sens beneen bi aussi mooy ah, actualité la ba léegi rappeurs yooyu kër gi son bi ñu génn jagleel ko Macky Sall yow comme des fois da ngay déglu mbir musique waaw non man damaa bëgg rap d'ailleurs et puis man kër gi euh, mën naa ne euh, seen fan laa quoi parce que yàgg naa déglu caat yàgg naa déglu kilifa depuis longtemps d'ailleurs parce que bon euh, c'est vrai que ñoom dañuy def rap mais on a à peu près le même âge donc bi ñu koy commencé man j'étais j'étais jeune comme ñoom euh, on a on a à peu le même age donc euh, maa ngi leen di déglu depuis boobu mais encore une fois man jeu di que loo gis dafa am fond dafa am forme ñoom am nañ droit critiquer parce que réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk ku nekk am nga fi kàddu ku nekk am nga droit wax li nga xalaat mais li ma jàpp mooy nit booy wax ci moom forme bi aussi war nga ko xool parce que euh, Macky Sall le président de la. woddu da bëgg ñu woddu da ko war a woddu Macky Sall c' est le président de la République et au delà d' être le président de la République Macky Sall c' est euh, am na ku mu nekk koo xam ne mooy waajuram bu góor am na kenn ku mu nekk boroom këram am na ku mu nekk magam am na ku mu nekk rakkam te fii koo fi génnoon romb ko nii rek romb mu romb sa mag wala romb sa rak ne ee eh, diw sa mag nangam sa rakk nangam nga sumee ko xeex ak moom donc pour pourquoi moom ñu war ko ko def. wala moom wala wala moom moom c'est parce que moom président la rek amatul benn droit. non président wul mu am droit am na ay droit ni nga amee droit man de sama waajur bu sama waajur bu góor ku mu romboon nga ne ko saay saay naa ko digaale ak yow. xëy na mbiram dañ liberté d'expression. Oh, non liberté d'expression am na fu mu yem. xam nga tifaare bokkul ci liberté d'expression kon bu boobaa kon tribunal du du juger ay nit pour injure. tey boo saagaa nit injure boo demee tribunal bu la porté plainte man yow Chérif Dia bu ma la tifaare woon boo demee tribunal nga porté plainte pour injure publique mais bu ma demee dañ may daan ça veut dire que aw ma droit def ko kenn amul droit def ko. <laughs> comme xëy na mooy dernière question yi nga yëngatu ci wàllu production wax nga euh, na yéen a ngi ci mbiri réaliser ay téléfilm ba sax jëlee fi télénovelas yi mais ba léegi ñu ngi leen di critiquer quand même ci contenu bi ne da ngeen di révéler Sénégalais yi li ngeen di wane daal ak réalité bi bokkul. waa xam nga moom xam nga loo gis euh, euh, ni ko nit ñi di jàppeele ni ko nit ñi di analyser mm-hmm. euh, parce que film fiction la fiction la xam nga luy fiction fiction mooy nit ki mooy génnee ci imagination et ñun ce qu'on fait c'est de l'entertainment c'est-à-dire nit ñi dañuy liggéey ba sonn ñëw toog seen kër ñu leen di bégal comme ni chanteur bi di bégalee comme ni nga mën tegee benn match de football mu bégal c'est de l'entertainment c'est du spectacle spectacle dafa war a rafet ça pas dire que man du ma boo xoolee man personnellement film yi may def ñun yi ñuy def Pikini yi c'est des films qui sont très ancrés d'ailleurs dama ko doon wax fan yi di saboter parce que bi ma tuddee euh, sama série bu bees bi Madior ak Dior sama doom bu jigéen dafa ñëw ne ma mais pas yow yow da nga bëgg ay tur yu sénégalais quoi ay turu kaw kaw quoi yow ay bés ngay wax ay dikkoon ay ay ay kii nu mu tuddati ay Madior ak joor pourquoi doo def ay Pod et Marichou ay des trucs kii quoi tu vois je dis écoute euh, c'est bien ce les gens font mais man je voudrais que quand on voit le de mon film qu'on se dise Wiri Wiri waaw Wiri Wiri qu'on se dise écoute euh, ça c'est c'est donc man je veux bien te faire rêver mais dama bëgg aussi nga xam ki nga doon parce que ni ma koy waxee nit ku xamul li nga doon doo mës a doon dara de il faut nga xam li nga doon ba pare doo ko doon dara donc quel que soit ce qu'on met dans nos dans et man en général les films c'est moi qui man maa koy bind donc man je tiens à une chose c'est à ce que nos production soient culturellement très ancrées mm-hmm. et boo doon suivre les productions de Pikini di nga xam ne c'est des productions qui sont culturellement très très ancrées au Sénégal. pour dire aux Sénégalais ben soyez fiers de ce que vous êtes. Mhm. xam na ni xëy na di ngeen euh, dem ci ay FESPACO yu ni mel dernière question bi sport la moom commencé woon Sénégal CAF Award yi mooy cérémonie yi nga xam ne fi la ñu amee pour rek euh, récompenser euh, africain am na Sénégalais bu ci bokk muy Sadio Mané quelles sont ses chances bu ñu ko mënee wax. bon ñëpp xam nañ ne Mohamed Salah mooy gagné. je pense que loolu moom franchement. Euh, bon ñun ñëpp dañ koy dañ koy dañ koy wax dañ koy dañ koy accepter euh, bon parce que boo xoolee Salah ak Sadio ils ont fait à peu près la même chose ils ont joué la Ligue des Champions ils sont allés jusqu'en finale Sadio dugal but Salah joué wul ils on qualifié leur équipe à la Coupe d'Afrique euh, ils ont joué la Coupe du Monde ils sont tous les deux sortis au premier tour Euh, mais Salah a fait plus que Sadio. Salah a en marqué club, quoi. en club il a marqué plus de buts il a été désigné meilleur joueur en Angleterre donc salaa mooy gagné. maintenant euh, Sadio man je suis très fier de lui Sadio euh, franchement bi ma gisee temps yee passé mu craqué parce que y a beaucoup de critiques naa nga wax naa nga j'ai même failli écrire un texte pour luy dire yaa nekk ci dëgg au fond parce que man quand je vois euh, Sadio nekkul ci fait divers day football. et quand il joue social aussi non non sur le terrain tu le vois il exemplaire en dehors terrain nit la comme nit ñëpp xale la mais Sadio doo ko gis mu tra mu traîner fii li ma gën a neex mooy ci vacances yi bi ma gisee Sadio mu nekk biir Bambali. sol kilotam di daw nekk ak boy yi xam nga après di génnee xaalisam di tabax ay lycée j'ai dit fii ban joueur sénégalais moo fi ma si tabax lycée mhm. kan am nañu ko fi amoon mais xalaatuñ ko. <laughs> kon moom laa fi gis. Mhm. ak góor gi si jeen ci wàllu basket ñuy def li ñuy def. donc Sadio on est très fier de lui et je lui dis il jeune ci sama gis-gis. Wolof nee na xëcc bu dagul dikk dina mhm. ko am. Aliou Cissé aussi bokk na ci coach yi ñu ngi koy ñaanal moom it bonne chance comme ni nga ko waxee noonu parce que suñu ay ak site concitoyen lan kon te ñu yëngatu ci loo xamante lu baax kon te tamit sénégalais yi dañoo war di jàppale ni nga muy solidarité bi kon Aliou dañ lay sant di la gërëm ci ànd bi ak télévision Futurs Médias kontaan ci sa teewaay fii. jërëjëf Chérif maa ngi lay sant di la euh, di ñaan euh, ni ko nit ñëpp di ñaanee euh, élection yi Sénégal mu nekk élection yu apaisé di ñaan aussi sunu personnel politique bi ñu xaw a changer un peu doxalin changer gis-gis ñuy def bu élection yi ñëwee ñu bàyyi xëcc bi ak xëcco bi jéem a wax sénégalais yi loo xam ne dina leen permettre ñu tànn parce que problème bi du fal ak fol yi problème bi tànn la. te kuy tànn da nga war a xam lan ngay seppi. muy lu am solo kon ñu koy sant di gërëm moom Alioune Ndiaye jiite société de production boobu di Pikini euh, production nekk journaliste kon euh, nee na moom benn yoon nga koy nekk ñu gërëm équipe technique bi nga xamante ni moom lañ àndaloon xaar ma of Mbay ànd ak Mamadou Dia ak Abdourahmane ci wàllu son bi montage bi Pape Maguette jaxase jaxate la ñu gërëm également waa hôtel Fana bi nga xamante ne ñoom ñoo ñu dalal rawatina colonel Amadou Lam moom colonel sax ñi ngi ko doon euh, honoré semaine bële passé président de la république daal di koy jox rek grand croix de l'ordre national du mérite euh, jiite woon na fi armée de l'air fii ci Sénégal kon moom. Euh, daanaka defal na Sénégal lu bari kon bu ñu ko defee lii euh, da koo mérito mbokk yi leen di sant leen gërëm comme ni ko Aline waxee ñaan rek élection yi nekk élection yi jàmm jox leen euh, daje beneen dimanche incha allah encore une fois di leen souhaiter bonne et heureuse année.